diwaanu Ziguinchor bi mu ne war na gis boppam ci euh, gouvernement bi di ñëw diwaanu Ndakaaru Louga ak ñoom seen noonu la ko yéen kaay gi wàl fu quotidien xëy fësal leen tamit loo xam yéen kaay gi wàl fu quotidien xëy na bu bees bi nga xam ne yéen kaay gi wàl fu édition bi dinañ ko delloo kii di Moustapha Diop mi directeur général Walf TV ak Walf rajo waa ngi wax nag jaar jaaram ci euh, yo maanaam jaar fi mu toll tey lépp kon mu ngi ci yéen kaay gii di wàllu ko di Abdoulaye yéen kaay yeneen critique yéen kaay gii di critique xëyee dellu ci gouvernement bu bees bi nga xam ne ni euh, booba léegi ñu ngi xaar waaye mbir yi dëkk ci ndax yéen kaay gi xëy sant laaj bëgg xam Macky Sall ak euh, kii di euh, ak ki nga xam moo a mooy tey bis la yéen kay na xëy dellu si waat ci session parlementaire bi nga xabar naa ubbi yéen kay gi ne bu ñu defoon ndànk jàppante na am ci diggante yi ak war taxawu noonu la ko yéen kay gi di xëy fës la Abdoulaye yeneen kay gi di le peuple xëyee dellu waat ci euh, euh, bataaxal bataaxal boo xam ne bind nañ waat parce que xibaar yi léegi

El Hadj Amady si wàllu bi seen xel dal ci noonu euh, la ko yéen a kaay gii di direct news tey si Dakar Times la ñu jug ci waa la bu doxoon ci diggante ak ay naatango ñoom ñu jël ko daal di fay dellu euh, fësal seen yéen a na daal moom mi di Pape Moussa Wara nee na daal Sénégal nag la ko yéene kaay gi xëy fësale eh, yéene kaay gi nag ne foofu boo gisee nag lu ni mel mooy que dañuy xaar suñu ko xamal su koy ëllëg eh, ci tribunal d'instance bu Ziguinchor eh, bu baax nag ci lañ xam ndax lañ war a tàmbali parrainage waxum déet mën na ko yéene ay Sénégalais yoo xam ne daañu dellu soit fii ci biir réew ñoom ñëpp ci gaal gi lañu jaaroon jotoon nañ di dugg sax fële ci Espagne daal fu mu nii dugal ci ay avenir delluwaat seen dellusiwaat leen fii ci biir réew mi noonu la ko yéen kaay gi suuf sax xëy 24 heures fa mu xëy waaw yéen kaay gi 24 heures xëy dellusiwaat ci semaine nationale de la prévention routière maanaam benn semaine bi nga xam ne dañu jagleel xeex accident yu bëri nga xam ne ñu ne ko fii ci biir réew mi bii nag mooy fukk ak juróom ñetteelu édition bi léegi euh, yéen kaay gi ne euh, ci xayma daal ci atum 2022 xayma nañu solo juróom-ñaari doomi aadama yoo xam ni jot nañoo loolu ci kaw télé bi léegi noonu la ko yéen kaay gi di 24 heures xëy fi sina wax ci askan bi nga xam ne dëkk fële ci langue bu bari bari te ñu bëri si ñoom soxla leen ndax géej gi nga xam ne doon fëx rek utali seen dëkkuwaay yi ñu bëri si ñu dajale yóbboon fi si mel ne xaar yàlla jugub ak bamba mhm. ay maanaam ay logement lañ leen fa defal waaye état bi daal daf leen fa ne daf leen fa bàyyi reytanteeg bakkan mu nekk situation bu métti boo xam ñu koy dund jamono ji ba tax yéen a kaay gi suñ ko ji daal ci amal ak taxaw seen man ngoog euh, stade bi la ñu di ci stade yéen a kaay soit ci Iliman ak Iso maanaam Iliman Ndiaye ak Ismaïla Ismaïla xam ñoo bokk benn club na jàllale ci club boobu li tax yéen gi ne est bu baax a baax jour noonu la ko yéen kaay gii di stade xëy Fassal Abdoulaye. yéen kaay bii di suñu lamb lañ. Ama Baldé wàcc na Modou Lo. Hmm. nee na Modou Lo mii du moo koy daan. Hmm. Euh, te nee na ba mu koy gëj gis yàgg na. nee na benn lu ma si gis Modou Lo. waaye bu mu koy gisaat mooy seen jàkkaarloo bii tam jàkkaarloo. waaye bu hmm. xoolee Modou Lo peese ko dafa neex neexul ba neexul waaye bu fekkoon ne xam na ne Modou Lo nii la mel. kon du dépensé moom sax 1000 francs. dégg nga combat ñu ngi koy togg. waaw ah. ci diggante guy gi ak Ada Fass. guy gi nag xëy na yëkkati na ay kàddu bi ànd ak Ada Fass xamal na ko ne. moom du jàlluwaayu du jàllukaayu benn benn mbër maanaam du escalier waaw léegi nag Ada Fass tamit tontu ne xamal ko ne ko bés bu bi du passé du dépassé une minute une minute encore combat la ñëw mujj nañ daw jëf waaw xam naa ne mun naa neexal euh, saison bi ñu tëgg ko dañ daw ci solo ñu xool euh, la ñu jokkalante ci kaddu ndax dañ ko jëfeem déet mm-hmm. euh, sëñ Omar Ba ñu ngi lay ci xibaaru yéene kaay actualité bi tey nag